sóoratu abasa lay wax si nii saar wi dafa tëb rek am sababu nusool sababu nusool bi borom xam-xam yëpp yonentu yàlla muhammad lañ ko moomale sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bu ko yàlla jaarale ci yorontu bi day jàngale waaye yonentu bi loolu du jikkoom du melokaanam waaye wax na ko rek ngir nattee ko yonentu bi ndax mooy suñu roy téef sababu nusool bi mooy sanaadiidu quraychin yi abu jahlin euh, maanaam ubay ak aasi ibnu waayil ñoom ponkal yooya dañoo waxoon yonantu bi ne ko yow sallallahu alayhi wa sallam ñu gën a ñàkk solo ci dëkk bi rek ñoo la topp ñu amul dara nekk ay taalibe xamuñ sax yëre yu ñu solo xamuñ luñ lekk ñoo la gëm soo bëggee ñi gëm la bu ñu jaxaseeg ñii ci benn place ndax nekkuñu seeni nawle may ñu benn jotaay rek ñu wax ak yow li ngay wax su fekkee ne nekk na luñ mën a dégg ñi ñi ñëw dugg ci lislaam suñ ko mënta dégg ñëwan la gannaaw yonentu bi nag may leen benn audience ñiy toog muy wax ak ñoom ci lislaam ba seen xel yi commencé jeng jëm ci lislaam yonentu bi kontaan lool foofa rek benn silmaxa ñëw bu ñuy tuddee ibnu ummi maktuum nuyoo ne yow yonentu bi yàlla bi waay waay jàngal ma ci li la yàlla jàngal te xamut ne yonent bi mi ngi ci benn audience boo xam ne dafa am ñu ko jagleel di leen jàngal waaye dañuy wax ne kersa mi ngi ci bët moom tamit ndeysaan gisut xamul li xew di di continuer tanjamal yonent bi di ko xoo rek te yonent bi booba mi ngi xemem pour ñu dugg ci lislaam ngir xir gim xir ci moom xaw googu mu xaw koo yu nag ngir hittewoo ñii nag yàlla nag wàccee aaya ja nag di wax ak moom ne abbasa moom de ñëkkal na xarxaram wata wala mu dëddu lu tax an jaahul ama ngir li ko gumba bi dikkal ah yonantu bi dee déeréet bul defati nii bul defati nii waaye fekk nag da koo jaarale ci yonantu ba lam ca namm mooy yéen ñi yàlla jox mbooloo yi ngeen tuddee seen bopp ay sëriñ baa ñu tuddee leen ko xemale leen seen taalibe yi xemale leen borom seg yi ngeen xemale leen borom sàkket yi borom seg yi borom sàkket yi dañu xam képp ñii ñoo yore wërsëgu mën a joxe mais ñii ñaareel ñoo yore pas-pas yi waaye ki yor pas-pas bu ñëwee ak ak mbuusam amee addiyaay ñaari dërëm kii yore addiyaay ñaari million ñoom ñaar buñ la soxlaa ndoor kii mën na fa am ay fan du la gis kii gis la te dara taxul du alaja mën naa am kii sax amut pas-pas loola day yàq diine te day yàq tamit pas-pas yàlla jàngale loola nag jaaree ko ci yonentu bi ne mooy nattukaay bi kon nag boo nekkee borom xam-xam nit ñi yaakaar la wiir maa yañ lay wiireel bu mu la tax wiire tegal ci yoon rek xemaleen ñëpp am na koy xeeb ci sa biir ci sa biir ñi la topp ngir ñàkk sa te mën naa xam yow mi ñu topp moo la ëpp cër ci yàlla yàlla da laa sagar rek kon yooyu yëpp dafay jar a bàyyi xel nit yàlla yaa ngi ci biir nit ñi te ba ba ko yonent bi wax dafa ne borom ñaari sagar yoo xam ne lu mu waat ci yàlla yàlla def ko mooy ku ñàkk solo koo xam ne boo ko gisee doo ko foogee euh, waaye nag léeg-léeg nga gis ñoo xam ne tey tabaarakallaahu bën nañ seen nopp yore ay góol du wax fu sori lañ bàyyee ko suñ bëggee gis xam sëriñ yoo xam sa ngi gis leen am ko xam ne mën na fa am ay fan du ko mën a gis ñooñu la yàllay wax ak nii tey gis nga yonent bi fonk gi ko yàlla fonkoo tax ba mu koy yedd sax duxul ko demiru xitaab manoon na ko ne ko abbasta ñëkkal nga waaye dafa ne abbasa manoon na ko ne watawalayta yaa ngi dëdd mu ne watawallaa waxoon manoon na na ko ne an jaakal ama mu ne déedéet an jaahul ama ngir fonk sayduna muhammad xam nga léeg-léeg nit ki boo ko fonkee xormaal ko bu xawoon sax teggi yoon soo ko yedd da ngay yónni kenn rek ne ah man de saa waaye wax dëgg yàlla lim ma def neexuma gën a ma nag dama ko rus dama la doon ñaan nga dem waxal maag moom te bu ma ci feeñ léeg-léeg nit ku baax na def noona wala nga ñëw mu toog mënoo koo ñàkk a wax nga ne ko su ma sañoon de nga baal ma nii daal diw doxalee doo ko doxalee jaar foofa maanaam taafantaloo ko ba ba bëgg koo wax li koy mën a wax mais am na koo xam ne lu mu def lu mu garaaw garaaw mënoo ko koo wax direct noonu la yàlla mel ak Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lay wax si nag waaye gannaaw sigi bi ko yonent bi yàlla wàccee aaya ja xéexée yonent bi fu mu gisati maanaam um umni maktuum rek day jël làmbaayam ga lalal ko ko ne ko yow mi ma yàlla yeddee kaay toog yaa man atabanillaahu kay toog fii nga xam ne kon maal kon day san ci gannaaw si gi yonent bi fukki xare ak juróom-ñaar yoo xam ne day dem xare ji bàyyi ko fa muy jiite jàkkam ja ne ko yaa ma sama jàkka ji ci la borom xam-xam yi naa jiite kay xam na waxtu bi kay mi ngi nii jiite dara nekku ci Umm Maktum jiite na saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, su ko defee nag kon foofa la moom kay coow laa nga ca ab tëx ndax mën naa jiiteem déet li ma ci jaaxal buñ ko sujjootee qabla salaam ak baax da ndax dana ko xamam déet <laughs> euh, boo demee téere coow nañ ca ci am ab tëx ndax man naa jiiteem déet waaye silmaxa moom mën naa jiite moo tax sama borom ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa koon bépp mindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ko ko soob ci àllaaxira yàlla ne yonentu bi de abbasa ñëkkal na xarxara mamba wata wala mu dëddu an jaahu ngir lim ko dikkal al ama gumba bi wa maa yudrika lan moo la xamal laallahu na moom ya zakka mu laab ci bàkkaar ngir jëfam ju baax ja aw ya zakkaru wala mu waaru fa tanfaxu sabab sos dana jëriñ ko azikra waaru gi wa amma man daal ka nga xam ne nag istaxnaa dafa doyloo xaralam walis muy gëm yàlla di ab xéeféer fa anta yow ta saddaa yaa ngi gaarlu lahoo ñeel ko wa maa alayka warul la allaa yazakka seen ak ñàkk tuub buñ tuubu sa yoon nekku ci nanga nga jotal rek wa amma man daal ka nga xam ne jaa aka dikkal na la yasaa di dox wa huwa fekk moom yaxsha ma ragal yàlla wa anta yow ta lahaa yaa ngi dëddu xanu walis ko kàllaa bul defati lu mel nii gannaaw tey innaha naka aaya la fa man saa ku mu soob zakarahu na ci waaru fii suhufin mu nekk ciy téere mu karamatin yadi yuñ teral marfuatin yadi yuñ yëkkati seen daraja mu taharatin yadi yuñ laabal bi ay di safaratin mu nekk ci loxol malaaka yoo xam ne ay bindkat lañ kiraamin malaaka yu tedd bararatin malaaka yoo xam ne yu baax a baax la kon lii la yàlla wax lii nag kon kenn ku ci nekk dégg nga ci sa bopp kenn ku ci nekk gis nga ko kum nekkoon sa jikko bàyyi ko kum nekkutoon sa jikko la doon sa jikko mooy tollale nit ñi na nekk sa jikko nga continuer ca képp koo xam ne am nga cër ci yàlla yaay mën a tollale maanaam borom borom cër yi tolloowut cër mën a ñu tolloowut ku leen mën a tollale rek am nga cër ci yàlla gaa yi baax ya nga xam ne nag yàlla rek la ñuy hut waaye hutuñ xalal hutuñ hadduna borom dërëm ak borom milliard lañ xemale yooya maqaama yàlla may na ko suñ mag ñu baax ñi fi nekk kon nag nañ góorgóorlu royee ko ca ñoom ndax kat kuñ fiy topp tey ñoom mag ñoo nga ñoo tax waaye ñun ñii ku fi liggéey lu tax ni ñu topp la nekkut fi waaye kenn ku ci nekk rek ña fa nekkoon ñoo fi liggéey liggéey bu rëy booba rek ñu ne ñu koy sagalee kon nag sag booba tamit tabaarakallaahu yàlla ñu ci artu ñu mën a xam fi ñu teg suñ tànk ëllëg kon nag léegi la ca tegu nag ma ngay wax ca ah, maanaam xéeféer yeeg weddi gi ñu weddi yàlla ak fi yàlla jaara ñoom toqantal ma niyu lu mbu dereet suux ñu nekk uh, ab liir mu jaar leen ci yoon wu xat woo xam ne ñoom xam nañ ne xajuñ fa sax ñu dee bañ dee mënoon leen a bàyyi tan lekk leen comme ni ñu lekkee mala yi yàlla suturaal leen ñi bàmmeel leen doom adama rek la ñuy suul doom adama yàlla da ko teral yàlla doomu aadama rek la yàlla teral muy solo ko gisati ku dul doom aadama mba loo gisati xawraam mi ngi ne fàng nga jàkkaarloo ak moom ci biir ay doomam ci biir ay sëtam ci biir ak njabootam doom aadama rek la yàlla terale solo waaye moom rek la yàlla teralee war loo gisati lu doomu aadama dañ koy war waaye doomu aadama moom mooy war ma ngi ca avion ya ba mu bëggee dem ca jaww ja ma nga ca métro ya ma nga ca tabaarakallaahu euh, ma nga ca ma nga ca 4 x ya ma nga ca jakarta ya ma nga ca sareet ya ma nga ca kaw fas ya loolu lépp yàlla terale ko doomu aadama waaye loo gisat lu doomu adama buñ ko waralee rek fa mu jëm du musiba la ci moom foo fekk nag wu ñuy waral héehée du ko du ko jig de xar mu gis ñu waral ko teg ko takk tànk ye yéegal ko ci oto mu ko yóbbu fa mu jëm baaxul ci moom waaye doomu aadama rek mooy koo xam ne moom fu mu waree mi ngi ci teraanga mi ngi ci xéewal waaye doomu aadama tamit la yàlla jagleel mu dee nday saanam nga gas ba mu xóot sang-sang muy ab julit nga seede wax wax yu rafet ñu tàggatoo ko mu des ci xel yi nga suul ko waaye tey leneen lu dul doomu aadama bu deexee dañ koy bàyyi noonu tan yay lekk bukki yay lekk gunóor ya ñëw di ko dugg di ko sémbu waaye tey imaginel tey ku nekkoon julit nekk ni ku baax nit rek ni ko yàlla foorale nga dee ñi sànni la ci àll bi tan yi di lay lekk ku ko mën a xool kon nga xam ne kon suma amaatahu fa aqbarahu yàlla teral yàlla na fekk nit xam teraanga ja moo tax sama borom ne maanaam tofal na ca ne tila yàlla na rëbbeef al insaanu xéeféer ma lëf lu màgg ak farawoo mën na koo weddiloo min ay sayin ci lan lëf xalaqawoo ci la ko yàlla bind lu ko bind min fatin toqantal ma niyu xalaqawoo bind na ko ca fa qaddarawoo mu nattale ko ci ay étape aw lumbu aw suux summa topp jàppandal na sabila yoon wa yassarahoo jàppandal na ko mooy fam jaar summa amaatahoo topp ray na ko fa aqbarahoo bàmmeelal na ko summa isa sa topp bu ko neexee ansharahoo mu dekkil ko kàllaa sa dëgg-dëgg daal nit ki defut liñ ko doon maanaam nit ki daal defut liñ ko fi indee woon la maa yàq di defut maa amaroo lañ ko digal lii daal nit ki daal liñ ko fi indee defut ko dëgg-dëgg kenn mënta màggal yàlla ba jox ko xaqam wa maa qadarullaaha xaqa qadrihi loo def def rek am na loo dese kon yàlla jëlee ci toqantal ma niyu lu mu dereet suux ñi wal rooxo ngay dund nekk ba naka la nga nekk mu jaar la ci aw yoon summa sabila yasarahu nga dee yàlla suturaal nañ gas ba mu xóot denc la fa waaye tamit dégg nañ summa amaatoo fa aqbarahoo bu nit ki deexee rek nañ ko gaaw a denc yonent bi dafa daan wax ne ndax faala andi ta wa faali tartibi bi saali wa summa li tartibi bin fisaali boo demee loolu Ibnu Maalik wax boo demee tamit eh, yonent bi dafa wax ne ku dee bu dee bu dee bëccëg la na xendu ki ci biir bàmmeelam ku dee su fekkee guddi la na fanaani ci biir bàmmeelam mu ne ki dee kenn la ci ñaar ñii rek benn muy ku bon ku bon loo cay denc muy yàgg benn muy ku baax ku baax loo cay yéexe gaaw koo dugal ci bàmmeelam mu hegg ci yërmandey boromam moo tax kon gaaw a denc la lislaam di jàngal summa amaatahu fa aqbarahu lañ ci déggee léegi na xoolal fi fi yàlla jaar ak ñun fi yàlla jaar ak ñun ci jox ñu tibam ñam lay nettali tibam ñam billaahi boo xamoon fi mu jaar boo koy lekk da nga sant yàlla seexal euh, islaam xaaj ibrahim dafa daan wax ne tibam ñam bu nit ki lekk li ci participer ba nga lekk ñi tibba billaahi lu rëy rëy la boo ko xamoon da nga sant yàlla mu ne benn tibam ñam bala nga koo lekk taw maanaam participer na muy asamaan si taw gannaaw bi taw ñëwee ci ndox maanaam taw mënta am ci lu dul ngelaw ngelaw ñëw na ngelaw ngelaw yooyu ba ñaari niir ya tëbante gannaaw loolu malaaka yi ñëw nañ malaaka yi ñooy yenn niir yi di ko di ko bamax di ko xëcc gannaaw loolu avant maanaam dënn ñëw na melax tamit ñëw na ndox door a sotteeku suuf tamit ne ma indi sama participation xotteeku ndox dugg ca ba mu duggee tamit gàncax taxaw maanaam commencé sax ba mu commencé sax mu commencé ñax góor takk ndigam dem bàyyi ko yore léeram beeg sox sox ba mu dem a dem ba màgg góor takkaayu andi ngóobaanam di ko góob mu dema dem ba màgg nga andi machine bi ci waanaam maanaam wala maanaam jigéen gi taxaw takkaayu ne maay bojj maay soq maay wal kaw diir taxaw maay togg cunwaar ne maay yëngal nga defar defar ba mu tegu ca taabul ba nag mel nam war a mel nag ñu door a jël lañ jël nag tabaarakallaahu nga door a bu lekk ci kuddu mbaa ci ñam kon dëgg dëgg dëgg fi tib jaar lu sore sore sori la fi mu jaar na la yàllay wax nii moo tax da ngay lekk mu yomb te yow doo xalaat yii yëpp xalaatal taw bi xelaatal ngelaw li xelaatal niir yi xelaatal maanaam eh, eh, malaaka yi xelaatal góor ya takkaayu simbongu dem di dem di dem di dem di bay yooyu yëpp nga xool ko moo tax mu ne fal yanfuri na xool al insaanu xeetu doom fal na xool al insaanu xeetu doom aadama illa taami jëm ci ñamam ñu ne ko lan la mu ne anaa naka ñun yàlla sabab naa sotti nañ alma a ndox mi sabban ak sotti suma shaqaq naa topp xotti nañ al arda suusa shaqan ak xotti fa an bat na saxal nañ fiyaa ca suusa xabban pepp wa inaban ak resin wa xasban ak ngëjum su ko defee yi wa qadaban ak ngëjum wa zaytunan ak olive wa naxlan ak tàndarma wa hadaiqa ak tooli xulban yoo xam ne dafa tappaloo wa fa ak furwi wa abban ak ngooñ mataan mu nekk yóbbala yóbbal lakum ñaan wali an'amikum ak seen juri kër yi fa ida jaati bu dikkee assaaqatu wala ñaareel ga bis booba yow ma yafiru dana daw almar'u cam si min aqihi ca mbokkam ma wa ummihi ak yaayam wa ubbi wa abihi ak baayam wa saayibatihi ak soxnaam wa banihi ak doomam ya li kulli mri'in yal na cam su ne minhum ca ñoom yow mis bi sa keroog sha'nun mbir yuxnihi boobu dana doy ko wujuhun xam na cëlmaay yow ma isin bisab keroog maanaam musfiratun aji aji aji leer la musfiratun aji melqati la ci leer daahikatun aji maanaam aji bég la mustabsiratun aji kontaan la borom xarxaram ba waaye wu jowoon am na cëlmaay yow ma itin bisab keroog alayha nekk na ca xabaratun pënd xabaratun ñuul ñuul tarxaquha mbir moomu dana yéeg ko xataratun maanaam dogetu lëndëm ulaayka yooye gaay hum ñoom kafaratu ñooy weddi ña fajaratu ñooy kàccoor ya booba kàccoor ya seen xarxaram ya buñ dekkee day ñuul kook mel ni dogetu lëndëm xarxaram ba poussière waaye ki nga xam ne dafa texe bu dekkee ëllëg ci bàmmeelam xar-xaramam day yanji leer nañ su ko defee nag borom kontaan lool bég lool su ko defee tamit nag tabaarakallaahu yooyu yëpp yàlla nga ko ciy wane ah, mu ne yowmal qiyaam nit ñi danañ daw gis sa baay rek daw ngir ragal xaq ya gis sa jabar daw ngir ragal dépense yu manqué ya gis sa doom ya daw su ko defee gis say mbokk daw kenn ku ci nekk yaa ngi ne man de damaa ragal mankile waxuma li dox sama digganteeg moom kon nag mi ngi mel ni tabaarakallaahu yàlla dimbal nañu ba ñëw nañ ci suratu takwiir ah, bu ñu fi yàlla indiwaatee ci kartanal yàlla Oustaz Assane Diouf mi nga xamal ne li am ci waxtu wi jeex na